waaw li ko waral mooy euh, ñu ñëpp xam secteur informel euh, poids bi mu am fii ci Sénégal dayo bu dayo bi mu am fii ci Sénégal te ñëpp xam nañ BIT depuis 1972 mi ngi wax ci mbirum secteur informel boobu ba léegi nag mu ngi ci teg ay tànk ay jéego yu am solo waaye tey li ñu ci li jëm ci secteur informel moo doon dafa am ay jumtukaay yoo xam ne moom moo manqué woon su ñu formaliser secteur informel naka lañ koy jaaree ban jumtuwaay la ñuy pour mën ko def donc loolu moo doon formation bi tey dañu tàggat ay formateurs jox leen jumtukaay liggéey ak ADPME ak suñu partenaire financier agence italienne pour la coopération pour que ñuy bëgg formaliser entreprise ñu xam fan lañ koy jaaree ak yan jumtukaay la ñuy teg ci yoon. ñaar fukki formateur yoo xam ne bu fi jógee dañuy dem ci ci terrain bi former nak maintenant les chefs d'entreprise parce que formation bi pour chef d'entreprise la parce que ñooñu ñoo soxla ñu formaliser leen donc ñoo ñooy xaar ci formateur ay jumtukaay yo xam ne dinañ ci mëna a sukkandiku pour mën leen jappalé ci sen processus de formalisation. waaw coup projet bi lu am solo la danaka dafa nek lo xam dina mëna jappalé projet bi ci ay at manam ñaari at pour que ñu mëna mettre en œuvre jumtukaay yooyu yëpp agence gouvernement italien moko financé gouvernement italien moko financé mais jaarale ko ci agence de coopération au développement bi nek fi ci Sénégal wa mu nek ci 1 million 630 000 dollars du projet euh, agence euh, bi mettre en œuvre pour que projet bi meuna djublu ci walum formalisation fi ci Sénégal ak Gambie wa ADP moy mooy bo xamné mom le état bi tek fi pour que mu mën a accompagner petites et moyennes entreprises te xam nañu secteur informel bi ñu ngi ci biir petites et moyennes entreprises yi donc boo leen bëggee teg loxo il faut nga jaar ci adp ma donc loolu mooy waral partenariat bi ñu sooxal tey entre BIT ak ADPME Nous nous une structures d'appui aux petites et moyennes entreprises donc nous structures une en contact direct avec les petites et moyennes entreprises. Donc nous, envoyons des formateurs, nous formons pour qu'après les structures puissent sur le terrain pour former les entreprises.